السلام عليكم تبارك الله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 ak Serigne Babacar Sy bu nu dee yëkkati kaddu dëggal seen kaddu moo tax ak it dëggal li Serigne Abdoul Aziz wax ni Cheikh Tidiane

waye bu ngeen deme fekk fa Cheikh Abdoul Aziz fekk fa sunu nijaay Serigne Babacar si fekk fi sunu mbokk Cheikh al Hadj malik muni doyna waaw mu melni euh delloo njukkal mo len fi andi dañu wax ni bor bo mënul la fay lo rafet la rek dawal ko ci xadara bi li mënu lebal ba ba àddunay tukki duñu ko mën fay waye nañu fexe ba luñu rafet la rek dawal ci euh naa ko wax boobu maa ngi ci prison ba maître Abdoulaye Wade